laylatul xadr kenn mënu ko tudd ci xew mi te sa xel demul ci soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi di ko dundal di wéyal liggéey bi nga xam ne moom la fi bàyyi woon soxna moomi Kebe mu El Hadji Babacar Kebe Ndiouga at mu jot day teewee bis bi ñëw feddali kóllëre gi nga xam ne moo doxoon ci diggante waajuram wa ak njabootug soxna may gi mu ñëw ci soxna astu moom soxna baali moom soxna may saafonte ak moom ziyaar ko ci bis bu tedd bi nga xam ne soxna moomu kebe wan na ko ne bis bi bisam la te kër gi kenn gënu ko fee dëkk kii mu ñëw kii mu ñëw kii mu fekk si day doomi ndeyam dañoo bokk ndey du ab doxandéem du gan képp kuy jàpp ne soxna moo ne kewe gan la ci Touba erreur ngay dox wala li muy def da koo xam ci yoon wi la juddoo ci la màggee ci la yaroo Serigne Saliou wut yaral ko boppam kon xàmmee na li muy def. ca soxna May ak El Hadj Babacar Kébé nga waaye ca soxna May. ak soxna Mariam Dieng Sall wàññi na mu tedd ko la légende maa soo ngi nii jot ak moom. maa sàll waaw. yàlla boolewaat leen nag. dend ak yaayam. bi bi fi soxna daal di jógee ñun ñëpp ñu gërëm ñun ñëpp ñu jaaxle waaye Cheikh Sidi Mokhtar ibnu Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad borom ku dem ma dem ku demul ma dem Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad daal di wàññeeku ni soxnaa su maa lay buuf doo jooy kenn doo jooy soxna Bali doo jooy soxna May doo jooy seen Cheikh Mbacke Gueye defaat ma sama mag yu baax yi man maay nekk man maay nekk borom kër gi maay doom tey jii doomu soxna May ci kër gi maay taawu soxna May waaye mu ni kan laay séddee soxna Asou soxna

soxna Astu Mbàkke moom soxna Baali moom soxna may kontaan lool ci tànk yi nga xam ne soxna Mooma Kebe yëkkati na ko ñëw ci kër gi mu nekk tànk yoo xam ne nee na du lu yees ndax at mu jot dana ñëw teeweeg laylatul xadir gi ànd ak ñoom mu nekk guddi gi nga xamante ni yàlla suñu borom moo ne ci alxuraan moo gën junniy weer.